نور الهدى فين السودان سيدي برحمة wax leen yéen ñëpp alhamdulilah. yéen ñëpp bàyyi nee nañu alhamdulilah rabbil suma doomu baay suma rakk suma xarit suma kóllëre Mouhamed Khoureychi Ibrahim Niass. maye démb laa ko wax ne ko yónnee woon naa délégation assemblée nationale. Mm-hmm. keroog bi ñuy rob sama mag ju baax ji Cheikh Tidiane sama doom mhm. moom laa jox oto ne ko demal mhm. ndax boobu man maa ngi tëdd mhm. tawat ah, yàlla dimbal na nag ma wér ci ñaanu Baye Niass Cheikh Aly Sall ak maam Ablaye ak suñu Aliou dem ma ne ko sa ba ngay ñëw jeudi bu ñu añee julli ci baar bi pare ñu dem seen bi ji Cheikh Tidiane ensuite bu ñu fa jógee ñu yegg ci sëñ bi xarit général après ñu rentré aller retour waaye daf di lu jaadu lu war a am ndax sama digganteeg sa waajur bu góor ba ma bàyyi di booleeg moom moo xalif bii di Cheikh Tidiane Niass tey boobu maa ngi am fukki at ay quelques mois amaguma onze ans boobu maa ngi sëye ma 1951. boobu maa ngi C1 année ba ci tegoon laa waroon def entrée en sixième pour dem lycée. Mhm. dafa yàgg. d'accord bàyyi boole ma itam ak euh, soxna Fatou Mata Zora di sama mag di sama jigéen. Mhm. di sama kilifa ma def ko yaay en plus. ma def ko yaay. Mhm. te yéen am na lu mu leen wax. man ñaan ñaan yu ngay may defal ba tey. ñaan yoo xam ne yu mu ma ko doon ñaanal. ba yàlla jël ko. dëgg ah fii nag ku fi ñëw ci turu Cheikh al Islam nga ñëw. Mhm. muy Alhaji Ibrahima Niass. Mhm. suñu waajur suñu kilifa suñu wasila suñu royukaay. Mhm. ak njaboot gi. te kenn jiituwul ci yow mi dëgg la noonu laan daan doxalee sëñ Hassan. temps yi mu feebaree ñëw na seet si ma Dakar. ba muy dem yoonu bu mujj boobu Londres. dëgg la na seet si ma. dëgg la bu ma jëlee avion di dem Paris. ma yegg Paris ci la ma l'ambassadeur Abdourahmane Diaw woo ne ma kat bàyyi làqu na te boobu maa nga Paris ak war a jël avion onze heures pour mhm. dem seeti bàyyi noonu laa dëppee jël avion ci ëllëg sa man ak yaama ajo yaama ñes man mhm. yaama mhm. ñu àndoon ñibbisi bi ñu indee lépp ñu def ba def la ca war ci bopp Alaji Ablaye ci boppam ak sëñ bi sëñ Aliou ci boppam ñu jiite ko ba nag lii ma def tey dama ko def comme kilifa ci at mhm. kilifa ci deret ji mhm. waaye itam comme taalibe mhm. kilifa mën na ne taalibe ndax yàlla mooy jël nit jiital ko nga di jiite fii ajuma bu nekk di jiite wax yi juróom di xutba yàlla suñu borom moo ko def defoon ko avant muy sëñ Assane defoon ko avant muy sëñ Aliou def ko avant muy Baye bi nga xam ne moom moo daan jiite leen ah lii nag wareef la ma ñëw ne la maa ngi lay wax encore si gindigaale ku baax ki fi jógee yàlla de may na ko ay at ci ñaanu waay juróom bu góor ak bu jigéen ak ñaanu boroom këram parce xamoon naa seen diggante ni meloon mm-hmm. parce que 11 ans ba léegi yàgg na. dëgg la 1951 ba léegi. dëgg ñi am calcul nañ calculé 1951 ba léegi. Mhm. te loolu wàññiwoo ci dara yow mii. wàññi keroog bi sama yaay làqoo yaa ñu dëgg la. yaa ko jullee. dëgg léegi alhamdulilah ñu yóbbu ko denc ko. yow mii yaa ko jullee. sa maam nga jullee keroog. dëgg te ba nga ko jullee. Mhm. nañ. ndax yaa ko waaw loolu nag moo tax ma ñëw fii seet sama jarbaat mm-hmm. sama doom mm-hmm. waaye itam sama imam mm-hmm. ànd ak suma rakk ju baax ji muy sëñ Mouhamed Kourechi Ibrahima Niass démb laa ko nekk euh, suma damay dem seeti sëñ Cheikh Tidiane Cissé jàlle ko après ma dem nuyu suñu mag après ma rentré Dakar ah mag nag dafay tabat. dëgg léegi mag la. dëgg yaram bi neexatul. dëgg la su may julli damay toog. ndax tànk bi ëmb bi. dëgg léegi nag ñaan gi jàll gi ñu boole ci ñaanal suñu Aliou. incha allah ak Cheikh Al Islam Al Hadj seen diggante ñëpp xamoon nañu ko. mos naa ñëw fii tàkkusaan mhm. ànd ak suma yaay. seet si mhm. baay. ñu dugal ñu ci néeg bi. ñu téléphone téléphone fixe mu amoon boobu. Mm-hmm. ñu ne Assane Cissé day sa sët bi ñu wax ko bàyyi. dafa yëgoon ci bis ca Caire mu daanu faatu. bi ma toogee man maak suma yaay ñu wax loolu bàyyi bàyyi ne déedéet Assane demam jotagul sama kanam man boo maa ngi université. mu ne xam naa fàttaliku nga affaire boobu. dëgg la mu ne jële ooyal leen ma sëñ Aliou ñu dem jëli sëñ Aliou mu toog. mu ne ko dégg nga liñ ma wax mu ne ko déedéet mu ne ko dañ téléphoné fii léegi ne Assane Cissé bi nekk étudiant ca Caire dafa yéeg ci bus mooy ñooñu xale bu yéegee bus Caire du fay <laughs> ci biir ñooy fay ñee ca koo duñu fay <laughs> mu baraste ku daanu mu ne waaye du Assane de mu ne indi leen Fatoumata Zora ñu jël ko mu ñëw toog mu ne ko jàppaleen ne du Assane <laughs> di ngeen xaar ci kanam balaa diir danañ téléphoné ne Kerne beneen Assane la. avant ñu jógee foofu woote nañu ne beneen Assane Cissé étudiant. ca Kër en même temps que suñu Assane. moo baraste ko ci kaar ba gaañ. bàyyi lu ma leen waxoon. Ah, loolu dama koy wax pour xar yéen ngeen xam. Mm-hmm. kan moo doon Cheikh al Islam. kan moo doon sëñ Aliou kan moo doon Fatimata Zora. Mm, keroog yàlla la bàyyi ñas ci boppam suñu kilifa suñu lépp. ak suñu Aliou ak Fatimata Zohra mhm. sama yaay ak man ci laa jëlee ba ma pare ma ñibbi Dakar boobu maa ngi dellu Paris pour jàngi mais loolu maa ko fekkee ñu ne ko Hassan bàyyi ne déedéet mhm. Hassan demam jotagul te ab diir ci kanam danañ xam ne du moom xanaa beneen Assane la ci la ñu wootewaat keer ne déedéet beneen Assane Cissé la mhm. étudiant au Caire comme suñu Assane mais du moom xale yi da ngeen jàpp bu baax de. Cheikh Al Islam demul fen dafa làqu rek. suñu Aliou Cissé demul fen dafa làqu rek. Fatuma Soxna demul fen dafa làqu. parce que ñoom du ñu dem. dañuy làqu. denc nañ leen nag waaye lu ñu wax ñu ngi koy dégg. lu ñu xelaat xam nañu ko. te ñu ngi ñaan ñaanal guddeeg bëccëg. loolu mooy suma ñëw bii ànd ak suma rakk ju baax yii. jërëjëf su ma ko yónni woon. Mhm. nga ne ça va. day na la fi sax lu ma ñetti yoon ñëw na fi ñetti yoon. Mhm. ma ne ko kaañu dem. Mhm. ba ci ba ci Alaaji Cheikh Tidiane Cissé. ma ko jërëjëf. jërëjëf ci ni nga yoree njoboot gi. nekk ci ron sa nijaay yi baax yi. surtout xalif. Cheikh Tidiane Niass mi. ba ma Cheikh Tidiane Niass di doomam Moustapha mooy ñaareelu góoram. dëgg la. man mii la ko tuddee boobu fukki at ak ñoom benn la am. dëgg année boobu laa doon def brevet élémentaire. Mhm. ci Ndar lycée Faidherbe 16 ans 1956. dëgg la yow nga am 16 ans di sol dàll plastique sol culotte xamoo dara <laughs> mënoo dara hmm. xamagoo benn diplôme daf ma ko tuddee ba pare ma door a am BPC. Cheikh Al Islam ñëw man yëguma ci dara. seet si ngaar yi Njaay ca Ndar fa mu daan dal mm-hmm. kër góoli ala ji man njaar mm-hmm. ñu wax ma ne ma bàyyi ñëw na ma dem nuyu ko mu ne ma ah sa mag tuddee na la doomam de ki démb noonu laa koy yëgee seize ans waaye yow ka la seize ans yaakaar moo tax mu tuddee la mu tuddee la doomam mënoo dara amoo dara yaa ngi jàng mu tuddee la doomam Moustapha kóllëre gu wér la kooku kooku mën naa ko fay moom mi moo tax ba mu tuddee sama taaw bàyyi Xaali Ñas ka mhm. ci tegu moom laa ko tuddee moom la moom laa yónni woon keroog bi ma tawatee yëf yi ñëw yëf yi pour ngeen xam rek yëf yi naka la mhm. doxee mhm. xalif bi tuddee na ma doom boobu fukki at ak juróom benn la am loolu du pour yaakaar ma de wala pour yaakaar ci man dara dëgg la dëgg la ba bëggoon ci xolom boobu moo nekk ba tey dëgg la waaw kii nag moom sama rakk la ñoo bokk bàyyi ñoo bokk ne jàppaleen loolu dëgg la ak ñi topp ci Cheikh Tidiane ñëpp samay doomu bàyyi la ñu kër kër kër kër sama nijaay ak sëñ Aliou nag moom fii la nekk moom. dëgg la. muy Assane mu yow mu ñoom ñëpp nag. Mm. bi ci ñu mu ñi. dëgg la loolu mooy sama yoon. sëñ bi jërëjëf jërëjëf na yàlla fay. jërëjëf kuréel jërëjëf. loolu nekkul Paris mu ne dañoo ñëw da président ñëw nga sa kër comme ni nga ko waxee sànq. Euh, ndax bi nga waxee ne dangay ñëw sëriñ bi dafa kontaan ba dafa ko yëgli ci jumaa ji dayo bee tax nag ak mbokk bi bokk ci am man ñes bokk ci bàyyi loolu yëpp yàlla def ko man nag suñ la jaay nga euh, te itam ma taxawee nga ko itam comme di sëriñ bi wax sànq projet si ñëw na fi ñetti yoon ñëwal la fi moom itam nit ku baax la fu taxaw fu mu nekk yow la fa nekk kon nag duñ def dara lu muy gërëm sant ñaan la jàmm ak may la fan gudd ba nga bëgg a fi nga bëgg a sëriñ bi nag moom wax dëgg ku am coow cofeel la dafay wax sa waxtaan lay day waxtaane toujours waxtu ñu wéetee sa waxtaan dana ko indi bon nag ndax euh, ni nga defal euh, pa ak seen seen relation toujours ba ci courant de sud bi nga tudd nii waxtaanee na ko ba nag ñëw nga say ci sa kër ñëw nga ci say doom ñëw nga ci say mbokk yëf yi yow lañ ko war a jaale ñu ngi la koy jaale sëñ bi bismillah alhamdulilah maa yàlla di julli leen nuyu nuyoo bu kawe mbooloo moo xam ne président Moustapha moo ko jiite ànd ak rakam Cheikh Mouhamadou Quraish kenn xamul sax lan lay wax ndax cofeel gi nga xam ne moom lañ leen teeroo ak moom lañ leen ameel ci xol yi bañ déggee ne yaa ngi ñëw Cheikh Mouhamadou Quraish mu ootee ne bu ngeen di départ départ Dakar danañu oo wax ñu ko dafa fekk maa ngi julli ci tusubar waaye foofu laa ko yëgalee ñëpp ngir bëgg ci sa ñëw ak wane ne sa ñëw du ñëwi ku nekk waaw ñu bari ñëw nañ fii de waaye mbégte bi ñu am ci sa bos duñ ko am ci beneen ndax yàlla moo ko def ci daraja ji la yàlla teg ak li nga xam ne moo nekk suñ diggante te lépp nekk di ay mbaax yoo xam ne luñ ci fàttaliku rek gën a bég euh, sëriñ Mahi Cissé suma rakk daf maa nettali sànq bi ma ko yëgal ne ko yaa ngi ñëw ci kanam mu ne ma su ma yaay de nettali na ma ñaan yu ko Sidi Ali dénkoon ne na ko koy defal gannaaw julli gu nekk ma ne ko man nettali na ma ko bu yàgg mu ne ma benn bis dama ko wax na ko yaay yow li nga fonkee suñu yaay Moustapha mi dama bëgg nga wax ma exact lan la mu ne ko seriñ bi moo ma ko denk pour ma koy ñaanal yàlla ma xam ne sëriñ bi du dénkaane caaxaan ñaareel ba itam yaayam muy maam Abisata dafa sonn ci suma ñoom yaay bañ nekkee si ak baay dimbale leen te jamono boobu soxla woon nañ dimbal ne ko bu ma fàttalikoo ñaar ñooñu rek fi ma ko teg du ma fa teg kenn kon nag loolu kóllëre la koo xam ne ci yàlla la fasu te dafay continuer bu jeex mukk te li ma la wax rek cheikh ba mu ñëwee cheikh koy si ñëw waa assemblée yëpp ñëw yow ñëwoon nga ba pare ñëw bi dooleeku leer la rek ci kaw leer kon duñ def lu may ñaanal la yàlla yàlla yàggal la fi. ñooy la dund bu gudd gudd ci kanam te sa dund lu barke la lu ñu soxla la yàlla na ko yàlla yàggal jox la wér ba nga xam ne itte yëpp danga ko mën a dox lépp loo xam ne itam yaa ngi ko eena bëgg ko yàlla mottali ko ci sa loxo nga def ko yow ci sa bopp ñun daal gërëm nañ la bu ñu xoolee wàlli soxna si gërëm la bu ñu xoolee wàlli Sidi Ali gërëm la bu ñu xoolee wàlli Cheikh Ibrahim gërëm la lépp nag mbaax rek la moo tax ñaan yooyu nga xam ne ñoom ñoo ko féetoon di la ko defal ñun tam ñu ngi fas na taxaw ci di la ko defal waxtu bu nekk yàlla di la gën a yëkkati di la gën a yokk te lépp loo bëgg rek yàlla defal la ko te mën loolu ko itam nga def ko ci sa loxo li nga bëgg ci sa bopp ak li nga bëgg ci njaboot gi lépp yàlla xam na ko yàlla na la ko defal yàlla yàlla yokk te barkeel sa lépp ba lépp loo jub rek yàlla amal ko yàlla mën na loolu yàlla na ko def ci mbóoti wa rafa'naa makaanan aliyyan bi ma waxoon ci mbooti laaya yooyu yàlla na sax ak yow. alhamdulilah. rafa'naa makaanan aliyyan. rafa'naa makaanan aliyyan. rafa'naa makaanan aliyyan. yal na la fi yàlla yàgg. amiin amiin amiin. yàlla na sa njaboot gii màgg ba nga fekkee ko. amiin amiin amiin li nga leen di ñaanal yàlla na yàlla def mu tasaare ci famille bi yëpp. amiin amiin amiin na ko Cheikh Al Islam ñaanee woon. amiin amiin yal na ko yàlla def. amiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ku nekk na jàng Fatiha benn yoon ak ñett salaatul Fatiha ñu jàngal ko président Moustapha bëgg-bëggam moom xam na ko yàlla xam na ko yàlla defal ko.